mbokk yi ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkk si yéen di dellu siwaat rek ci vidéo yi ñu doon def ak yéen euh, ci mbiru plateforme yi di leen ñaax ngeen continuer di abonné euh, di partage vidéo yi vraiment di commenter aussi bu fekkee ne am ngeen loo xam ne bëgg ngeen ko ci xam bu baax su ko defee ñun itam fuñ ci toll rek. Euh, lépp luñ ci yàlla xamal ñu partage ko ak yéen tey nag dañu ñëw ci benn astuce bu ndaw boo xam ne ñi koy gën a woo mooy ñi nga xam ne dañuy yor réseau réseau marketing yi maanaam ñi nga xam ne dañuy activer ay compte ñi nga xam ne ñoom dañuy euh, dafa bëri ay nit ñu bëri ñu nekk seen ginnaaw donc euh, nga gis ni en général ñooñu da ngay activer ay compte compte yi des fois day nekk compte yu bokkul mu nekk loo xam ne euh, dafa xaw a metti ñenn ñi ay fichier la ñuy jël di ci bindu turu nit ñi ak ñooñu su ko defee des fois sa machine mën na formaté wu des fois aussi euh, carnet bi nga doon bind mën na réer lépp mën na ci xew donc ñu am benn application boo xam ne yàgg nañ ko yor di ci liggéey te biñ ci biñ ko yoree ba léegi di di ci liggéey aussi njëriñu kese lañ ci lañ ci gis ñu indil leen ko tey pour présenter leen ko application bi nag dafa xaw doy waar ndax doo ci def ay capture d'écran ak yooyu donc képp ku ko bëgg a xam nu muy demee ci vidéo bii rek nga ko mën a seetaanee puisque am na yu bëri yoo xam ne mënoo ko def ci application bi kon Euh, dañuy dem ci générique bi léegi ñu ñëwaat après moo won leen étape par étape application bi nu muy demee incha allah ba ci kanam. voilà application bi mu ngi tudd Bitwarden Bitwarden la application bi tudd nit ki mën na koo mën na ko installer ci téléphone mu nekk application mën na ko def extension tamit ci ci ci ci machine am lan mooy intérêt application bi mooy supposons yow da nga yor ay compte yu bëri yooyu ubbi compte Gmail compte Facebook compte compte munoo tamit di jël sa benn mot de passe di ko utiliser ci compte yooyu yëpp wóorul ndax bu ñu xesee ba pirater benn bi kenn bu xamee sa compte sa mot de passe su ko defee day mën a jàll ci yeneen compte yëpp alors euh, li gën a wóor mooy mënoo tamit ni en chaque fois nga ubbi benn compte rek nga ubbil ko mot de passe bu bees. donc loolu moo tax gars yi xalaat génne ay application bëri nañ mais man bu ma leen bu ma choisir pour présenter leen ko tey mu ngi tudd Bitwarden boobu boo ko installé ci sa machine ci extension bi machine bi nii lay ñëwee moom moo nekk application bii donc application bi bu fekkee ne ci téléphone nga ko def moom si boppam euh, doo ci def lu dul euh, créer ci compte jël compte boobu noonu nga ci créer nga def ci mot de passe mot de boobu moom moo lay gardel sa yeneen compte yi nga ciy def yëpp ak mot de bi boo ko ubbee bu fekkee ne ci extension bi danga dem dinaa def lien wu site bi ci suufu video bi képp koo xam ne da nga bëgg am ci application bi nga cliquer ci soo demee dinañ la woon bu fekkee Chrome nga yor Google Chrome nga yor da nga bëgg am extension bi boo toppee euh, instruction yi di nga ko installé boo ko installé nii lay ñëw day ñëw mel nii puisque am connecté woo ci donc su boobaa boo ci cliquer da ngay ñëw fii ñu bind créer une compte bu fekkee ne téléphone portable la aussi la même chose da ngay créer fii mu laaj la adresse email bi nga xam ne moom nga bëgg a créer compte ak mot de passe bi nga xam ne moom nga bëgg a créer compte bi donc man maa ngi fi am adresse mail mais tey du du adresse mail boobu dama ciy créer beneen adresse mail beneen compte ci seen kanam su ko defee yéen aussi ngeen ngeen mën ko ngeen mën ko jàpp ba nga xamante ne mën ngeen ko utiliser puisque application bu am solo la voilà kon ñu dem. Euh, soo leen gisee soo leen gisee fii ñu to ni ma créer moo de passe bi supposons man dama def. M majuscule D S après ma def 9 8 6 7 6 4 de 1 noonu laa ko def donc euh, mot de passe la bu kii mais dama ci teg arrobase xam nga mot de passe bi mot de bu compliqué la déjà euh, soo ko defee nga confirmer mot de passe bi fii su ko defee nga doog a dem soumettre léegi man mot de bii rek moom laay soxla pour garder ko pour denc ko. mot de passe bi moom laay sécuriser sama compte yëpp ak sama compte Fiol yi donc booy utiliser application bi fexeel nga am mot de boo xam ne mot de passe bu fiable la boo xam ne bu yomb a xam yow rek yaa ko xam nga denc ko après nga dem soumettre créer nañu compte bi waaw léegi mot de boobu nga xam ne moom nga créé woon moom ngay ñëw tappe fii léegi ma def créé naa compte bi ba pare m majuscule ds se connecté léegi gis ngeen ne connecté wu naa ba boo ubbee application bi lii lay indil au début fii euh, fii mooy paramètres yi maanaam yu bëri yoo war a mën a def ci mm, application bi bon man sobuma ci lool ab bariwul lu ma ci lu ma ci gérer waaye bu siposon léegi nga bëgg a ubbil nit benn compte mu nekk compte PetronPay wala compte bu mu mën a doon soo ñëwee ci no fii ngay ñëw bu la neexee da ngay générer ay mot de passe gis nga boo générer mu indil la beneen mot de passe gis nga da ngay générer nu mu la neexee nii léegi nga copier mot de passe bi su la neexee nga yokk mot de passe yi ñu gën a bëri gis nga su la neexee nga yokk mais mën nga ko bàyyi 16 su la neexee waaw en même temps su la neexee nga utiliser caractères yeeg yooyu su la neexee tamit nga génnee ko nga coché ko donc yow yaay tànn lu la neex arobase xam nga mot de passe bi neexut a jàpp ci xel mais aussi neexut a xam idée bi moo nekk noonu léegi. amagul benn élément bu fi nekk puisque defaguma fi benn mot de passe léegi comme noonu la damay dem ma connecté wu ci benn site boo xam ne daf may laaj login ak mot de passe ngeen xool dans la norme application bi war na ma laaj ndax dama ko bëgg a enregistrer ma enregistrer ko su ma ñëwee euh, pour dugg foofu dama fay da kii bi noo di utilisateur bi dafay nekk wa ilaa nga def nii par exemple bëgg nga dugal benn nom utilisateur ak mot de passe su PetronPay wala Wozur wala beneen kii da ngay ñëw fii ci plus bi léegi nga ñëw fii nii nom utilisateur par exemple nga ne Amadou ni mot de passe bi nga bind mot de bi nga xam ne moom nga moom nga copier woon dugal nga ko. léegi site bi url u site bi moom mooy nekk fii bu nekkee PetronPay la url bi mooy nekk fii que day fekk yaa ngi ci biir euh, yaa ngi ci biir PetronPay bu fekkee ne Wozur la url bi mooy nekk fii mooy adresse u site bi www.wozur.nangam-sangam moom mooy nekk fii yaa ngi dégg léegi su ko defee soo paree li ngay def moom mooy da ngay enregistrer léegi am nga benn kii bu nekk fii waaw da ngay gis ne léegi fii Wozir fii ci biir Warden laa nekk nii su ma defee nii ma déconnecté wu xam nga adresse bi ñu ko defee moo nekk nii mot de passe moo nekk nii man dama créé lii won kon won application bi ne ko moom moo war a nekk fii gis nga soo cliquer fekkoon te trompé la wala wala beneen kii la boo cliquer nii moom mooy changer boppam gis nga mot de passe moo nekk nii mais lii munoo cee connecté wu fii puisque bokkul léegi damay def ni ma ñëw fii mu modifier ko fii ma def fi adresse mail bi ngeen xool arobase g gmail point com léegi mot passe bi lan la ñu waxoon dañ ne woon mot passe bi M majuscule la MDS ñu def 9 8 7 6 5 4 3 2 ak arobase du lii la ñu waxoon ñu enregistré ko léegi mu ngi noonu ñëwaat naa xam nga mot de passe bi ak ba fi ne ak noo utilisateur bi man maa ko fi njëkkoon def léegi su ma ñëwee ma cliqué fii su ma defee nii moo de passe bi day ñëwal boppam gis ngeen ko nii ak nom de utilisateur su ko defee su ma connect su ma dóoree foofu rek damay connecté wu puisque dugal naa fa identifiant yu normal yi am na fu ma si juumee fii laa juume sàmba bi ci adresse bi laa juumee gis ngeen voilà voilà defar naa ko ba pare su ma defee nii gis nga lépp léppay ñëw léegi ma connecté wu gis nga dafay ubbeeku waaw léegi sama identifiant yi moo xam ci ligne la en ligne même su ma amul application bi su ma demee ci adresse bi su ma ci demee ma connecté wu ci damay ñëw fii sama identifiant yëpp dañuy nekk fii waaw su ma jëlee application bi aussi saa yoo duggee ci sit soo ko yoree saa yoo duggee ci site identifiant yi fa nekk yëpp daf la koy bindal waaw identifiant identifiant yi fa nekk yëpp daf la koy bindal bu nekkee ne Wozur nga nekk soo fa yoree dix compte soo ñëwee ci biir Wozur daf lay bindal fii ne la dix moom dix compte nga am Wozur nga cliquer fii après fenêtre bi ñëw nga gis beneen compte fii beneen beneen beneen nga xool bi nga bëgg a connecté wu nga dem ci boobu cliqué ci kawam mu ñëw ci node utilisateur beeg mot de passe bi nga cliqué jàll. donc affaire bi noonu lay demee waaw lii lu am solo la te nekk na loo xamante ne aussi dinañu noppal ci liggéey bi puisque munoo en chaque fois. pour nga dem euh, activer benn compte faw nga nekk foofu bind noo di utilisateur yi fii mot de passe bi en chaque fois il faut nga jaar loolu affaire bi day xaw metti donc loolu mooy affaire bi quoi waaw tey lii moom moo nekkoon euh, video bu ma bëggoon partager ak yéen euh, maa ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaan ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen di ñaan aussi ngeen partage vidéo yi que am na yeneen astuce yoo xam ne tout le temps suñ ko gisee dañ koy indi te li ko tax a jóg rek moom mooy jëmale liggéey bi kanam jaa ngeen jëf